saraax la nuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa Eumeu ak laaj ba sunu lamb samp ak Balla Gaye wax jamu waxoon Balla Gaye ma fi génnoon ne lamb ji dañ maa tàppet ñoom ñépp a ma ragal lamb ji amul ku fiy takk ngemb te tàppetoo ma journal ba dafa xëy fësal ab laajam ba xam ndax Eumeu Sène avoir peur de Balla Gaye 2 Eumeu Sène mi daan Balla daanaat ko Eumeu mi ko dégguloo mu ñal dégguloo waat ko mu ñal ndax ñi Balla Gaye 2 naan dañu koo ragal Eumeu Sène ca la bokkam xaw ma kan provoqué waaye li am ba des mooy Balla Gaye 2 day provoqué rax ca dolli ne Balla Gaye 2 bu toogee ci ruqam c'est le calme bu defee sorti ci lamb ji ba wax rek mooy lépp a ngi buuse waaye yaakaaru ne provocation yooyu dana tax Eumeu Sène jël ko bu dee sunu papa Boy Kayre moom it la mu xam le mooy Balla Gaye 2 fa poussé Eumeu Sène à nii mu waxee dañuy njort ne Eumeu Sène la soxla da koy bëgg sës ci miir bi ba mu sës ngir mu mën a am troisième confrontation fight Balla Gaye c'est un daanaan ndax bu defu doon sorti Eumeu Sène du génn Eumeu Sène mi fi waxoon ne nag du bëreeg Balla Gaye de loolu waxi mbër képp laa ko jàppe bu avance teewee opportunité teew gisuma lenn luy tere Eumeu Sène mu jël bile combat ka nekk ci tànki jël combat def retouram mooy Lac Rose bu faas le journal ba xëyee mooy Lac Rose promet un retour explosif moom Lac Rose la mu xamle ca Brésil ba mooy maa ngi sant yàlla bu baax léegi kay lamb mu gën neex bu dee ca succession président Alioune Sarr kan moo koy wutu ci bopp CNG bi waa Saint-Louis génn nañ ba dàq anciens yi ñoom waa Ndar la ñu mooy tout sauf les ñoom fa ñu wekk seen réflexion mooy les lutteurs ne sont pas neutres mbër muñ fi jox CNG bi làmb ji yàqu mbër yi neutre ñu mënuñoo yor làmb ji ñun d'accord nañ ci ñëpp sauf les bu ñu jàllee ci écrit benn barak mbooloo seen bilan dañ leen di fekk ñu def 4 victoire Eumeu moo daan Eumeu bu Bosco Sow Boy Niang moo daan Bébé Thiat bu aselem appliqué moo daan Demix 2 bu Ramdan seen cinq défaites yi Joo moo daan Sa seen cinq défaites yi Sa Thiès bu Caaroy ndigal moo daan Joo Gaynde Waalo bu Papakan moo daan imposé Ibu Social bu Texas moo daan Mambal Bébé Fass bu Fass moo daan Pape Guy Siteu bu Waalo bu Jimboori moo daan Urgence foofee seen ténor ya armée Aline Bay kenn bëreegul Aline Bay cere dolli ñeex dem ca première place ba jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah